asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi ñaan bu yëkkati sama xol jërëjëf sëñ Tuubaa yàlla na nga dellu si ki ñu bëgg a jox kàddu gi mooy yow Abdou Diouf taxawoon ak Serigne Saliou di jàmbaar mais Cheikh Makhtar moment bi may nekk Gabon maa ngi lay woo yaa ngi Amérique di taxawu Cheikh Amadou Bamba Dieye Bamba Dieye le 28 juillet kon Sëriñ Tuubaa la ne woon li faali wa li xaayi wa fawzi bila ana bi kawni xadimal Mustafa tatabayen dañ na àddina am na lu war a jàng nag ci bàyyi ah. màggal boo gis fokk Sëriñ Tuubaa defee nañ koy defee màggalu jeewal jeewal màggalu ndar ndar màggalu konaakiri konaakiri garan basam fa lañ koy defee Touba biir Touba màggalu sànnu sànn waaye màggalu julli géej gi rek laa gis defewuñ ko fa ko sëñ Touba defe ndax julli géej gi buntu géej gi rek képp Seexu Xadim moo dem Ndar Ndakaaru Conakry Grand Bassam loolu moo kenn ba taal ko alandisi kutumi dawme booma banama kajiki fandi bango